Euh, tey la ñaareelu kumtali maanaam weeru koor ñetti la ci waxin ñetti fukk la yonent bi sallallahu alayhi wa nee na fukk yu njëkk yi yërmande suñu borom la fukk yi ci digg bi nga xam ne moom la ñu tàmbali tey njëggalul suñ njëggalul suñ borom la fukk yu mujj yi gore ci sawara yàlla na suñ borom boole defal ñetti yépp tomb biñ ci indi tey nag mooy nelaw nelaw day moom euh, dafa bokk ci ñun sax ci tabiya doomu aadama la bokk waaye nag yaa koy gàttal mbaa nga guddal ko rek kenn ku nekk. Eh, te it gaa yi yàlla yi am na ci ñoo xam ne demoon nañ ba ñàkk ay nelaw nga xam ne amatuñ ko Sëriñ Tuubaa tubaab yi mës nañ koo laaj ne ko ndax danga nelaw mu ne mësuma koo nekk fenn kenn mës sa fekk fenn sëriñ bi muy nelaw mu tëdd di nelaw dundam gépp Cheikh Mamadou Moustapha mi ko njëkk a wóotu ci ak mujjam bi aw yaramam naqare bi ñu wooyee médecin bi mu ko seetee dane bu fekkee ne am na jenn tawat juñ mën a gendee ko ci moom de mooy manque ay nelaw mu daal di jóg daal na ñoom de ñuy wax lu dëgg ba tàyyi waaye tey de wax nañ dëgg ndax bi fi sëñ bi jógee ba léegi de fàttaliku mu fu mu tëddee ci ab lal nelaw ndax liggéey bi man ma gis koo xam nelaw na ñetti fan yu mat sëkk <laughs> am na gaa yu mën a nelaw am na koo xam dañ ne gannaaw dañ ne suba la tabaski mu tëdd nelaw ñetti fan ba mu yeewoo ñu ne ko tabaski gi jàll na démb la woon kanam gaa nga ñaawa ñaaw sadd sadd déformé mu mel du nit ñépp ay nit lañ ñee dañoo dimbale seen roox moom mu dimbale bakkanam rek nit lu ne mën na ko kon nag kenn ku nekk yaay tàggat sa bakkan te faggu ay ngërëm ak ngëneel ah am na ñoo xam ne nii de weeru koor yu ñam duñ ko nelaw foo leen gis seeni bëti nga xonq cooy ndax duñ nelaw guddi lurul lu néew bëccëg tamit xalaatuñ ko ndax waxtu wu nekk ña ngay am lu ñuy def ngir bañ weer bi dara raw leen ci te du leen yóbbaaleel ay tuyaabu yàlla ñu ci yàlla boole am nañu farlu waaye am na ñoo xam ne ne moom weeru koor guddi geeg bëccëg gi lépp la ñu maasale far nelaw ñenn ñi moom guddi gi sax dañuy nekk di seetaan ay film yu ñàkk ful la ak ay émission yu télé yu guddi yi nga xam ne amul benn farata amul dara ay nit ñi tuwaale toog di wax ci lu ci lu amut bopp amut genn nga fanaan ci boo xëyee yendoo nelaw loolu taxutoon weeru ko war a jóg te sëñ Tuubaa daana wax ne guddi gi day lu gudd la bu leen ko gàttal ci ay nelaw bëccëg gi lu sell la bu leen ko naxal ci ay moy daana wax ne képp ku bëggub cër ci suñ borom faaw ngay fokk ma fa faaw ngay fokk ngay weye guddi yi di jaamu suñ borom tabaraka wa taala wax na ko ci nax ju waaye nee na nag bu fekkee dangaa ngaa bëggub cër ca yàlla ba noppi di fanaanoo nelaw bëggal nga sa bopp loola jomb nag bi xadril kaddi takk tasibul maali wa man talaba al ula sahara layaali taroomul majda summa tanaamu layla laqad atmaxta nafsuka fil muxaali moo tax sëñ bay jaxate ndeysaan defal ñu ko ci ay bay di ñu ko dénk naan xarit dëgg xarit dëgg yow bul defub tëdd kat ndegam bëgg ngaa def nituk tedd nga ndegam bëgg ngaa tedd bul tëdd yow te woppoo bu wér ndaxte koy faatu nga